bay laayay yonen bi laa ilaaha illallaah yéen aji réer yi romba ngeen yonen bi laa ilaaha illallaah bay laayay yonen bi laa ilaaha illallaah yonen bi laa ilaaha ay laayay yonnen be laay laay laay laay laala ay laayay yonnen be laay laay laaleeri ay laayay yonnen be laay laay buur yàllaay laay laay laala yi bay laa yey yónneen be laa ilaaha illallaah ren ba nu sante yàlla sant yonent bi tedd bi ma génne léegi ba tax may jooy xam ne rek mooy Rasulullaah moo ne woon démb moo nekk tey kontaante lool nag par rapport ak at mee passé ba ne amuñu suñu xol yëpp a tooy ñun àppe rek la am gëmuñu ku dul Baay Laay ak maam Seydi bàyyi laay mi di rasool laay xam ne moo ne démb moo tey ñu am mbégte lool nag ci appel bi kontaante lool ñu koy def ay ati ati at te at mii ñëw dàqal nu at mii di ñëw ci barke Baye Laye ak at mii di ñëw dàqal nu at mii ñu paase ci barke Baye Laye ak maam Seydi ñuy ñaan feebar bi yàlla na ko suñu borom teggi balaa bi fi am ci barke yonent bi tedd bii ma génn xam ne ñaan naa ko ci xabroom bii di kontaan lool nag ci appel bi di di di sant di jaale coon bi nga xamante ne nii nag ñoo bokk mbir mi ndax àjjuma bi paase rek woo na sang bi Mamadou Lamine ne ko damaa gént sëy maam Seydi dama gént sëy naa limaamu sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko maam Seydi nga gént mu ne ko géntu ba maam Seydi doom sëy naa limaamu ci boppam laa gént mu ne ma ma ne ko damaa damaa bëgg a julli si àjjuma coon ne ko man dimanche laay ñëw kon loolu du hasard nu ñëw denc ko fii ci suufam si yàlla na ko sëy naa limaamu teeru yonent bu tedd bi te suuf oyoos ci kawam ñun gëm nañ bàyyi laay loolu nga xam ne mooy rasul dañuy santaat yàlla bu baax a baax di ibbee ci turu yàlla bisimillahi rahmaani rahim di jaar ki nga xamante ne mooy suñu xalifa di Seydina Baye Abdoulahi di ñaan yàlla yàggal ko fi dëgëral ko sàmm ko sàmm njaboot bi yëpp di ñaan yàlla sàmm axlu bayti yaa rasulullaay bi góor ak jigéen mag ak ndaw axlu laay bi yëpp góor ak jigéen ma ndaw di ñaan jàmm fii ci Sénégal yëg-yëg bi ñu am tey muy mbégte ndax li olof di wax naan lu yàgg dëgg la ndax woote bii ñuy def nii di commémorer tey def na téeméeri at ak ñeent fukk ak benn donc bu ñu toogee ba jamono ji ñu koy màggalaat dañ ciy santat yàlla bu baax a baax donc yëg-yëg boobu mbégte contentement la ñu am ci wàll woowu waaw namoon nañu li nga xamante ne mooy jotaay yi ndax bërëb yi bërëb lu yu sell la yoo xamante ne dañ ci war def li nga xamante ne mooy ay zikrullaa fépp foo xamante ne jullit mu ngi fay teew place bu ñuy tuddee yàlla bés penc day taxaw di seede loolu dafa am solo ndaxte danay faral di génne ay ferñant yoo xamante ne ay xéewal la day wër àdduna wërngal peñ ngir rek doon ay xéewal ci màggaayu yàlla moo tax bu ñu toogee ba ay jamono li nga xamante ne mooy Covid ak mbas mu toll nii tere ñu am jotaay yu mel nii bu ñu ñëwaatee ren ba di ko def ndànk-ndànk dañ ciy santat yàlla di ñaan yàlla mu jëlee ko fi bu ëllëg bu déwénee incha allah. ñu mën cee taxawee comme nañ ko doon taxawee at yu ko jiitu Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wasalaam almahdiyul muntazar ah, jëmm la joo xamante ne li ñu mën a wax ci moom muy mbégte place bii nga xamante ne tëdd na fi moom Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ci géj gi la bokkoon waaye li ëpp solo ci li nga xamante ne mooy mission bi mooy yar gi nga xamante ne yar na ko ay njabootam waaye baatin boobu moo ëpp solo ndax fexe na ba li nga xamante ne moom la xale yi di jëfandikoo lu ci jëm ci wàllum cinéma rek yooyu yëpp mu tere ko ay njabootam ndaxte loolu mooy njeexantal bi li gën a yéeme ci loolu mooy nit ki li nga xamante ne mooy sa éducation sa yaram nga yar ko ba dara bañ la cee fekk ngir mën laa yàqal loolu mooy li ëpp kéemaan ci mbir mi waaye du randal géej ak leneen li ci ëpp solo mooy yar gi nga xamante ne njaboot gi yar nañ ko tënk googu tere leen lépp li nga xamante ne ay ñaawteef la moo la ciy jëmale mu dàqal ñu loolu indi ñu li nga xamante mooy kalimatu laa loolu moo ëpp ci ñun ci li nga xamante ne mooy wàllu euh, miracle comme ni ñu koy faral di waxee. ah yëg-yëg bi mooy kontaan wax dëgg neex yàlla parce que ñun moom appel mu am ak mu bañ a am yëpp dañuy ñëw ziar wax dëgg neex yàlla parce que euh, macha allah dañ cee judd yaru ci màgg ci ba ni toll nii kon lii du ni guleet ci ñun parce que bu dul appel da ngay ñëw jàmmalaay ziar mais tey yëg-yëg bi ñu am. maanaam du bokk ak yeneen yëg-yëg yi parce que tey da bàyyi laay dañuy aaji boo daaye laahi kon bés boobu moo ñu fi indi bés bi bàyyi laay woote woon moo ñu indi fi kon tey yëg-yëg bi ñu am bokkul ak yëg-yëg gi ñu doon am wax dëgg neex yàlla tey moom kontaan nañ trop trop macha allah. bàyyi laay li mu fi bàyyi bëri na macha allah ak njabootam ñu ngi fi ay sëtam ñu ngi fi di ñu teg ci yoon parce que man bi ma nekkee xale ci daayira Bézame bi laa yaroo ci laa màgg ba toll nii kon tey li ñu mën a wax ci bàyyi laay bëri na parce que nekk xale ñu lay teg si diine. di la teg ci yu bëree bëree bari ba yow yu bëree bari doo nekk sa mën naa ni daal ñun ci diine lañ ñu yar daal kon loolu sant yàlla la ndax yu bëree bari da koy jombale sa bopp te loolu su amee mën naa ni daayira bi moo tax ak bëgg bàyyi laay sopp ko. waa xanaa di bëgg lool euh, ci bis bi nga xamante ni moo tàmbeek ci ñu jàpp ko ci weeru saabaan nga xamante ne mooy mandargaal woote bi nga xamante ni moom la Seydina Limaamu Laay woote woon ne aji boo daa yàllaahi yaa maasaral insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum mooy nit ak jinne wuy si leen woote yàlla bi man la yàlla yónni ci yéen may ndawam donc loolu dañ koy fàttaliku tey ndax bis bii la ko waxoon àdduna wërngal këpp ne waaw lii lu mu doon kii li muy wax lu mu doon mu ne xat jaxala ruuxu muhammadi fii jismihi nee na suñu boroom mi nga xamante ni mooy faalu lima yurit lu ko neex mu def nee na jël na ruuxu yonti yàlla muhammad def ko ci sama jëmm ji man bàyyi laay donc mu yonti yàlla muhammad mu sotti woote fii ci saw bi ah loolu nag di mbégte donc mbég moomu lañ ciy am nga xamante ni lu musul am ci dër bu ñuul yàlla def na ko tey mu am ci dër bu ñuul muy yonent bi nga xamante ni moom lañ doon wut moom lañ doon bëgg moom lañ doon sàkku ndax yàlla moo wax ni li kulli ummatin rasul nun yàlla day xeet bu nekk dinañ fa wàcc ab yonent loolu yàlla dëggal na ko tey ci Seydina Limaamu mu woote fii ci yoof wax ji lool ay mbokkam xëy génne ko ne ko lii ngay wax boo ko bàyyiwul dañ la génne mu ne ndaam day duma ko mën a bàyyi ndax yàlla moo ma ko moo ma ko digal ñu xëy génne ko ba fii ngeen di seen fii yëpp ñu nekk nii géej la woon mu ñëw ba fii def ci miracle boobu nga xamante ni fii la ko bàyyi tey ci àdduna ku ñëw génération bu ñëw fekk ko fi xam ni fii géej la woon bàyyi lay rendal ko ci ndigalu ci suñu borom loolu itam lu ñu mën a euh, euh, comme ci payam la ñu taxaw loolu itam lu ñu mën a euh, wax jaam ñi la bu ko defee ñu xam ni rek appel bi daal mun ñu am lu dul mbék rek ak sant bu baax a baax. appel bi moom macha neex na. sell na te gis nañ fi tamit lu bari wax dëgg yàlla suñ sañoon moom mu ko daan mu daan mel comme ni mu daan mel bu njëkk ba niñ ko daan appelé ñëpp teew si wax dëgg yàlla waaye ku nekk yàlla yàlla dogalam jaam ak pexeem xëy na nii la ko yàlla bëggee woon daal waaye bu déwénee yàlla na gën a dàqam sama mbégte ma ñëw tey si Yoff Diamalaye dama fi yàgg ñëw dépp may tut tànk ba léegi gëm ni maam max Mahdi mii mooy sama yaakaar tey ak ëllëg mooy Muhammadu Rasulullahi mu bàyyi laay moo taxaw ne yàlla moo mu yónni moo ne xar ba xar ba yaati penku penku dina ñëw saw saw dina ñëw ki mooy imaamillaahi Mahdiyu mooy Muhammad umnu Abdullahi mooy Muhammad umnu Aminata mooy Limaamu Alassane ak maam Limaamu Kumba Ndoy moo ne woon lépp dina ma fekk fii si Yoff maam max Mahdiyu mii mooy xar ba ba yaati penku penku yaatu saw saw dina ñëw xar ba xar penku penku ki mooy imaami laayi Mahdiyu doomu maam Alassane Thiaw ak maam Coumba Ndoye bi muy ñëw fii Yoff dara amu fi bàyyi laay ne lépp dina ma fekk si fii si Yoff te lépp fekk si na ko muy limaami laayi Mahdiyu ah na ma koy tuddee sant yàlla rek julli Seydina Mohamed xam ne yàlla lu mu dogal rek mooy li mooy li nga xam ne moo am daaw amul mais ren am na sant nuñu yàlla julli si Mohamed yéen ñi nga xam ne yéen fi ñëw di dox tànku mbégte yan leen yàlla bindal tuyaaba li ngeen di fii dox yàlla noonu yan leen yàlla fay yiw bi fii ku fi ñëw ku ne rek dina la jox sa wàcc waaye daal parce que bërëb la boo xam ne ku fi ñëw ku ne dina la jox cër ku ñu xam ak xamul moo tax yàlla def bi ñu sosee waañ ba léegi depuis 2006 la yàlla mu ñu si defal ndam chaque année parce que bu doon ñun rek le bu ñu toggee ba ñu ci mën nañ ko lekk mais yàlla bu ñu suturaal daal bu heure bu événement bi jotee dañ ko togg une semaine bés ba bés bu dellu jaamu yàlla bu fi nekk rek bëgg bëgg nañ la fas yéene jox lekk mais lekk bi la jox lool noonu nag suñuy propre moyen la benn parce que nit booy liggéeyal diine sa propre moyen moom ngay jiital boo ko jiitalee le yàlla dalay def yokkute mais boo jiitalul loolu rek di ko yaakaar ci keneen yàlla doo defal yokkute en plus nekkul góor ni nga gisee jigéen ñi am ne góor ni mu amee ay jigéen yi toog gat noonu la amee góor toog gat c'est que man nag yàlla dafa nattu man lañ jiital man lañ jiitalagum man la fi yàlla teg depuis 2006 ba léegi suba yàlla mën na suba yàlla mën na ma fi jëlee keneen mooy ñëw parce que lépp loo gis lu ne rek continuer daal waaw ñii nag mooy ñi nga xam ne ni mu ñu sama ginnaaw mooy jigéen waañ bi ñoo may jàppale parce que man damay jënd rek ñëw di leen jox def leen nii def leen nii toog fële mais li lakk beeg tàngaay yooyu yëpp bu ma ko yëgee man benn ñoom ñaar di nga yëg ñaar ba ñetti yoon tang man it aw lu di leen sant di leen gërëm di ñaanal tamit suñu xalifa Baye Ablaye yàlla nag fi yàlla yàggal yàlla nag fi yàlla yàggal yàlla nag fi yàlla yàggal parce que lépp moom la xam nga koo xam ne da nga fekk say maam juddu di wax si ñoom di wax si moom say baay juddu di wax si moom yow boo si bëgg da nga sob rek parce que mënoo fi wax lu kenn waxul foofu daal laa mëneem si ay waxam. ah macha allah xam nga lu yàgg lu ne dëgg la te jaamalay sécurité du tey te bi ma leen xamee ba léegi si lii laa leen xam togg rek di joxe ñëpp di lekk daanaka soo xoolee génn wàll gi nekk fii ñëpp dañuy toog di góolu suñu añ moo tax dañuy ñaan yàlla chaque année rek ñu koy mën di ko teg ndax yaakaar dafa rëy daal bëgguñu tas yaakaaru jaam yàlla yi macha ah Seydina Limaam man daal sallallahu ay waay waay sama xol dafa sax sedd kooku moom macha allah man man maa wax si moom leen ndax lu ma war a wax ci moom rek fekk naa mag ñu baax ñi wax ko ba pare kon damaa topp seen ginnaaw rek waaw mais Seydina Limaam daal moom bàyyi laay daal mooy rasoolu laay sallallahu bàyyi laay mooy rasoolu laay